seen xibaaru suba. Assane Gueye. njiitu réew mi Abdoulaye Wade dañu ko tënk di ko nëbb dëgg loolay gis-gisu Cheikh Tidiane gaajo mi jàpp ne njuumte yi muy def ci wàllu xibaar yi ak na muy tëddee ci réew ma na mu koy gisee ak ñàkk yëg yenn yi moo waral njort ak euh, njiital luy jot jot na ci ne Abdoulaye Wade xëy na jotul dëgg gi ci weneen wàll it euh, jibal na laaj ci wàllu élection yeeg organisé gi Cheikh Tidiane Gadio nekkoon ci mitim Guédiawaye démb ñu déglu ko Salif Sow. bi ma jaaxal effectivement mooy bu président demee ba xool Sénégalais yi dans les yeux télévision taxaw mu ne leen ku fi mën indi vidéo wala déclaration rajo wala lu ñu bind luy wane ne man maa waxoon ne duma ma présenté wu 2012 ah loo bëgg ma jox la ma ne loolu boo réfléchir da ngay dem ba defe ne dul ñi ko wër dañ koy tëgg gis jant bi maanaam vérité yooyu nga xam ne vidéo yi existé du ñu bàyyi mu am ci accès parce que peut-être bu ko gisoon déglul ko boppam dina ne bon écoutez comme man maa ko waxoon donc nangu naa li ma waxoon damay dem sama yoon peut-être nga xam ne bëgguñu mu dem yoonam parce qu'ils ont trop d'intérêt à défendre parce que xalaatuñu woon ne mbir mi dina yem 2012 ñooñu fi mu nekk amuñu intérêt peut-être président xam dëgg bi moo tax ñu ne gis nga mbir mi faut mu am ci waxtaan il faut mag ñi jóg il faut kilifa diine yi jóg il faut ñëpp jóg ñu waxtaan Sénégal waxtaan fi mu nekk mi ngi bëgg a wees parce que bu ñu continuer lii ci confrontation la jëm situation Côte d'Ivoire gis nañ ko situation Niger gis nañ ko te loolu vraiment ñu aada ak suñu cosaan ak ñu ñu bëggal suñu réew tax na ñu ñu weesu foofu ñu jomb loolu jomb ñu ñëw devant tout le monde mu ne Ousmane Ngom ne ngeen moom mooy problème bi jindi ko gaa na ko déedéet déet mu ne waa ko mais du ñu diriger réew comme ça moom ci na ko bu ko yi dugal ci ay yoo xam ne héritage am dinañ ko yàq ba mu yàqu. Cheikh Tidiane Gadio élection yeeg yorin weeg organisé xalaatu Abdoulaye Wade jëm ci bu ko opposition bi bëggee mu dénk ko euh, keneen laaj yi nu ko yónnee mooy kuréel yeneen yan la xalaat ab séni wala Sénat lay doon ci weneen wàll M23 di ko fàttali ñàkk mën a bokkam moom Abdoulaye Wade seen gis-gis ci wàllu élection 2012 charte gi mayatu ko ko Alioune Tine la ci àndal euh, bu M23. bu fekkee ne sax euh, li mu wax. mën nañu euh, rafetlu intention bi niñ ko defee ak ni mu demee mun na indi ay problème ndax euh, bu fekkee ne yaa ngi ci meeting nga ni ah diw dee dama koy génne ñu naa naan la déedéet waaw waaw euh, dootul nekkati loo xam ne dafa mel ni vraiment lu sérieux la ak lu responsable la boo ne léegi dama jël élection yi jox ko ko rek jox dindi ko ci loxoom bàyyi li ci des tamit <laughs> dafay mel ne joxe bopp ci làmmiñ kon suy jëf ñu ngi xaar ci jëf ji bés bu jëfee ba nga xam ne jëf ci leer na ba dina bu boobaa dinañ xam lu ñu am seni la ñu am wala Sénat la ñu am wala ministère de l'intérieur yëpp la ñu jël dindi ko si loxo Ousmane Ngom euh, bu boobaa dinañu mën a euh, xam nan la ñuy réagir de façon positive président de la république constitution bi nga xam ne moom mooy garant bi na ko sàmm sàmm ko sàmm kàddoom def ñaari mandat daal di bàyyi bu defee ñaari mandat yi bàyyi yaakaar naa ne loolu mooy delloo ci jàmm loolu mooy musal Sénégal ci fitna musal Afrique de l'Ouest également ci ci fitna kon nag ñu ngi koy laaj rek di ko ñaan mu def comme ni ñeneen ñi def génn euh, par la grande porte lépp lu mu wax te loo xam ni dafa nekk lu positif euh, vraiment dinañ ko dinañ ko jàpp waaye li nga xam ne moo gën am solo mooy troisième mandat bi daal te vraiment mu bàyyi ko. parce que loolu moo gën ci Sénégal. Alioune ñu dellu si ak yéen ci samedi jëwoon ci Ndakaaru euh, place Obélisque Colobane naka noonu VDN ba ak manifester ya fi woon euh, ñaari wàll yi ku ca ney jibali lim waneeg mbooloo gu yëkkati keroog euh, ci bëccëg googee nag ci ay xibaar nguur gu Sénégal daal dina yónnee bataaxal ak clamé agence France Presse di yëngu ci wàllu tasam xibaar ànduñu ci lim ba nu jox waa M23 ñoom waa AFP teg kon nag ci wàllu kon bërëbu taataanu xibaaru police bu Sénégal naka ministre communication bi wax ñaari million eh, yu tegal ñeel waa PDS lu jëm ci wàllu artu gi nag eh, ñu ne eh, ci xibaar dafa diir kenn ci ñoom waa AFP Malick Rocky ba doomu Sénégal mu ne kenn artalu ko daa fekk ni bataaxal la nguur gi yónnee bataaxal ab kalaame ca joxu ko benn fula joxul solo genn gi bataaxal googee leeral li Malick Rocky ba ci jokkoom ak Ndate Diop. du tax ay xoqatal dafa am waa nguur gi. ñoom ñoo ñu benn bataaxal. di ŋàññi man man sax la ñuy wax nu may defee liggéey bi. ñu ne man dama jege opposition bi dama leen di faral damay nekk di bind loo xam ne daal day turaxal Sénégal baaxul si réew mi. am ah, loolu daf ma daf ma xaw a réeré jàpp parce que man man Sénégalais la man danaa bind xam ne dana yàqal Sénégal. bu ma commencé nit ki bu léegi ak fépp si nekk sa àdduna nit ñi loolu la ñuy wax ñu def ko su dara xewee soo bëggee xayma ñaar nit ñoo fa nekk nga oo waa police laaj leen liñ ci xam ñu wax la ne lii moo fi nekk si nit soo jógee nga seet nga dem si nga xam ne ñoo ndey mbi gi ñi nga xam ñoo organisé nga laaj leen ñoom tam ñu jox leen seen xayma journaliste nekk ci béréb bi mën na tamit jëmal xay xayma boppam soo méngalee loolu yëpp nga nga joxe ko joxe donc trois versions yëpp ban farlaatu ak contre kii di wala di moom ma si nekk man affaire yi man moo ko déggee man dama jaaxal mee rek man lu ma tiitu ndaxte lu mu lu mu wër mooy jalgati ma farlu ma opposé bi yi ni ñu la ko tëggee man jotuma menace lettre ko gouvernement bi mais ba léegi dégguma menace bon maa ngi xaar ñu seet ñu koy koy gérer Malick Rokiba bu agence France Presse caravane développement local nga woon dimanche démb ji département Malem Hodar occasion ngir ministre décentralisation Aliou Sow mu teg doj yu njëkk yu hôtel communautaire yu dëkk yii di Sagna ak Ndiobène Samba Lama hôtel communautaire Jonke suuf moom daloon nañu ko Mamadou Amath Ndione caravane développement local bi dem na ci ay gox yu bëri ci département bu Malem Hodar nekk ci région bu Kaffrine étape bu njëkk bi mu ngi amee ci communauté rural bu Sagna nekk ci même arrondissement bi ci gox bi nga xam ne am na lu toll ci juróom fukki village ak juróom-ñett ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllum gox ak yi teg na fa xeer bu njëkk ngir hôtel communautaire bi ñu fa war a tabax Aliou Sow ànd ak délégation bu takku dem na tamit commune bu Malem Hodar waxtaan fa ak askan wi laata bi di dem Ndiobène Samba Lama nekk ci arrondissement bu Daara Minam 2 fii nag askan wi nga xam ne ñoo jógee ci ñaar fukk ak ñeenti village yi nga xam ne ñoo nekk ci communauté rurale bu bees bi ñoom nag fekk nañu tegub xeer bu njëkk si seen hôtel communautaire jawriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wala gox goxaat ci jeexalee ab tukkub nemmeekoom ci communauté rurale bu jànke suuf nekk ci arrondissement bu Sagna fii nag askan wi yeewoo ci fanweer ak ñaari village yi ñoom nag wane nañ seen kontaante bi ñuy inauguré hôtel communautaire bu bees bi Aliou Sow joxe ay tegtal jëm ci ñu gaaw defar hôtel communautaire yooyu. di lay loolu jël xaalisu nguur bañ a tabax loolu du mënta nekk ma joxe leen juróomi weer ku mënta yeggale ma ñëw ubbi ko. nag ma ko wax ci loxo ca ko yoon li ma may ma jël ko ñu tàggoog yéen am na ñaar ñu wax loolu leer ñu génn leen jox ñeneen askan wi yëkkati tamit ay kaddu ngir joytu ñàkkum courant gi nga xam ne moom la ñu ràññee ci village yi ak tamit ñu defaraat wala ñu tabax ay yoon yu bees Kaffrine Mamadou Amar Ndione RFM jërëjëf Amar njoon RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñeenti minutes RFM bi leen di xibaar yi ñeel taw beeg taxawan diggi fenn fii ci Sénégal ak njaax jaaxle ci diwaanu Saloum donte waa Njaareem béykat yi ñoom jaaxle wunu ca Saloum dina ko waxee ayu bés a ngile taw fa loolee jaaxal béykat yu dëkk yu ci mel ni Thiaré ak Medina Sabax Ibrahima Benjamin Diagne. fukk fan juróom-benn ci welu sulet ak léegi benn pepp ndox rotatul ci yenn gox yu mel ni Poroxaan ak Ngàncu Nawde ci yenn diwaan yi taw yu mujj yi moo ngi am ci fukk fan ak juróom-ñett ci welu sulet tombeek lu ëpp benn ay bés suuf laalu fi ndox. tàggateem bi boobu boobule moo ëlëm baykat yu bëri ci diwaan bu Saloum ci bu ñu xayma li fi jotagum taw ci nawet bi doore ak léegi caare moom war nañ fa baawo naan ne fi la taw bi gën a néewee juróom fukk tomb juróom-ñetti milimètre mooy li fi rotagum ci ndox waaye gox bi gën namm tamit taw maam yàlla mooy sa baax ñeenti fan rek moom moo fi tawagum Kër Madiabel ak Kaymoor ñoo ngi ci téeméer milimètre topp xaaj ba tax baykat yi am neen fi yaakaar lool ci département bu gin Guinguinéo lu weesu gox boobu boobule nga xam ne àgg neen ci téeméer ak ñaar tomb juróom-ñetti milimètre Mbos Ngelu Uruur Ngañik ak Ngàncu Nawde borom taw bi séddalu fa lu bëri ca Latmingué baykat yi moom ci ñeent fan dong rek la ñu fa gisagum maam yàlla sotti fi ndoxam bu ci mujj moo ngi amoon ci fukk fan ak juróom benn ci weeru sulet Ibrahima Benjamin Diagne Kaolack RFM Diourbel di njaaxee moom foofee fukki fanangile taw fa waaye njiw ma macha allah bu nu sukkandikoo ci gis-gisub technicien ci wàllu mbay moo waral it béykat yee jaaxle wunu Mouhamed Jojo fukki fan ak ñaar weelu juillet ba léegi Diourbel amul toq ndox boo xam ne wàcc na fii waaye loolu nag amul njàqare boo xam ne andi na ko ndax kat taw yu njëkk yi nu mu wàccee ci biir dëkk bi am na solo lool benn technicien bu yëngu ci wàllu mbéy moom moo ñuy xamal lu nu mel lu jëm nag jamono ji ci wàllu mbay mi ci gàncax gi am na tax waaye bu am solo dugub ji jamono ji moo ngi jóg bu baax a baax ba commencé sax firi gerte gi tamit tàmbali naa jóg ci njiw mu mujj mi waaye njiw mu njëkk mi sax jamono ji ñoo ngi tóor tóor ñebbe ji tamit moom mu ngi jóg bu baax a baax jamono ji ba tax na béykat yi ñoom amuñu benn njàqare fu mu toll nii Mohamed Diop Diourbel RFM taxawan dik taw yooyu ci yenn ci diwaanu Sénégal nag ñi nga xamante ñoo xam-xam xereñ ci wàllu météorologie ne du dara lu may rek changement climatique at yi ci ginnaaw ni nu koy dundee ci àddina waaye yàqu ca dara ayu bés bi taw yi dina dooraat ci ren ndox dina am macha allah ñoxor Diouf lañ ci àndal ñoxor Diouf bu service météorologie bu Sénégal ci jokkoom ak El Hadj Ndiogou Diène am na tekk tekkaaral ci taw li boo jëlee gox yi nekk Euh, ci côté salum bi dem euh, kon euh, côté Diourbel ak yooyu gis nañu ne taw bi am na fi tekka takkaaral boo xam ne quand xaw na am xaw na xaw na am solo lool waaye loolu li koy expliquer du loo xam ne dafay bees toujours ndef ndortalu nawet bi daal day am toujours ay affaire yu mel nii moom mooy day début bi demarage bi daal toujours dafay mel ni mel ni machine bu panne daal <laughs> comme ñu ko mën a waxee alors donc du démarrer correctement bon loolu du lu bees peut-être mën nañ ko lii ak changement climatique moo mais mais du lu bees ci at yi ñu weesu mais loolu nag yàqul ci dara ci li ñu wax ne euh, ci li ñu qualifié saison bi ne dina nekk saison boo xam ne dina am taw pour démarrage boo xam ne rek dafa day gal day am ay gàllankoor rek ni ñu ko mën a waxee daal. fii ak euh, semaine prochaine euh, bi ñuy dugg ni semaine bi ñuy dugg si nii de ñu ngi xalaat ne daal lépp li nga xam ne moom la ñu woowee euh, gàllankoor comme anticyclone des Açores bi nga xam ne moom moo ñuy indil moom mooy nekk genre mur boo xam ne dafay bloqué kii guusaay guusaay yi jóge ci bët Saalum bi dugg bu baax ci réew mi. gis nañu ne mën nañu ñu ngi séntu daal ne fii ak semaine prochaine nañ gis di yéegaat tuuti su ko defee euh, mu am euh, guusaay boobu mun a yéeg correctement ci euh, couche moyenne yi ak couche basse couche yi pour que euh, activité pluvio-orageuse yi mu développé wu ak euh, indil ñu ay taw. Ñoxor Diouf bu service météo ci taw yi nu am yaakaar ayu bés bi mu daal di dooraat Abdoulaye génneel kon sa mbubam toile mi mu nekkoon euh, xët mi nu ubbiloon wàllu mbay meeg waaye léeg nawet bi ak taxawan di am ci wàllu taw yi donte ni ngeen ko déggee technicien yaa ngi dalal xel yi ñu daal di wutali bitim réew waxtaanee Washington gi war a am ayu gi gile ay gan njiiti Afrique ñeent ci la nu toll njiital D'ivoire Alassane Dramane Ouattara natangoom bu Guinée bu Bénin Mouhamadou Issoufou bu ca Washington. Maison Blanche bi di palais wu Amérique bi génne nanu lii di programme Barack Hussein Obama mi nga xam ni moo di njiitum réewum Amérique si biir xibaar ba jot leen nañu xam ne ni ni koy bii di ñëw kii di njiitum réewum Amérique bi dina dalal ab njiitum Côte d'Ivoire bu Bénin bu Niger ak bu Guinée si ay xibaar yu wér daje yooyu du leneen lu dul man. màndargal ab yëg ak lëkkaloo ba nga xam ne Amérique fas yéene naka am ak dëkk yooyu nga xam ne tey jii ñoom nooy màndargal démocratie wu Afrique ba tax na sax ña nga xam ni ñoom seen xel nàcc na lool ci politique gu Amérique nee nañu daje boobu ab ndimbal la ak jàppale ba nga xam ni moom la Maison Blanche fas yéene am ak dëkk yooyu le montin si jamono yi nga xam ne ñi di Maison Blanche ñoo ngay dagal yooyu dëkk am na yeneen dëkk ya nga xam ne ràññe woon nañ leen lool si seen démocratie foofu sa Afrique sowu jant ñoo ngay dugal tànk ak loxo ngir Maison Blanche war leen dalal ba sax am na ña nga xam ni ñoo ngay fay ay millions yu dul jeex ay lobbyiste ya nga xam ne ñoo nga ca place bu siiw boobu nii woowee kay suwe Condé ak Youssoufou sa Maison Blanche firndewul lu dul yooyu njiit ñoo nga sa pàcc ya nga xam ni moom la Amérique bëgg di gis réewum Afrique yi saay su ne Baba dara doon jokkoo ak yéen ca Washington pour Radio Futur Media. jërëjëf Baba Aydara RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak juróom. tàggat yaram ak Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi lay fay yaase Assane. <laughs> baat baa ngi bañ de. ma sonn Assane foog ma am lem lem ci def sonn naa. garmi nee na kenn du ko diwoo de li muy neex neex. foog moom ci kudd gu mag. ay ci ñu daal di door ak wàllu basketball euh, jëm nag ci finalu démb bi la ci championnat national jigéen ñi Saint-Louis Basket Club jël na ca raw gàddu ga. juróom benn fukk ak juróom benn ci poñ lañ am ñii di waa am juróom fukk ak juróom benn ci ay poñ loolu tax kon ba entraîneur bu Saint-Louis Basket Club basket bi léegi ci wàllu jigéen ñi dafa toxu ma nga ndar ndax dañu ko yàgg liggéey am na léegi ñaar fukk at a ngi ñu nekk ca taw bàyyi te ñoddi bu daggul dikk biiru mooy entraîneur waa seen basket la liggéey bu yàgg la te wolof na na booy ñoddi bu dagul dina ñëw durant vingt ans on sur le terrain de quinze heures à dix-sept heures boo ñëwee Saint-Louis xameewuloo entraîneur élite ak entraîneur petite catégorie dama ni c'est la consécration li mooy wane ni yàgg la nit ñi gëmuñu ñoon mais ñun gëm nañ suñu bopp les tirs ouverts le la condition physique parce que dañ doon joué ñoo xamante ni ñoo ñu mag ñoo mag xale yi bu ñu tenir ak ñun benn quart-temps deuxième quart-temps troisième quatrième quart-temps dootu ñu dem man dama xale yi soutenir leen rythme da leen daw joué vite et mënuñu la fin elle ne pouvait plus def on a commencé à mettre des tirs à trois points dama basket bi taxu na ku bëgg gis basket ñëwal ñëwal ndar ku gis basket demal ndar waaye altine tey am na basket ci Marius Ndiaye lay doon mu final championnat ci góor ñi nee nañu nag AS Douane ak Université Gaston Berger ñoom ñoo cay finalu dimanche jii jëm muy fanweeri fan ak benn ci weer bi ñu ne asan nag mooy final bi nga xam ne mooy tëj saison basket bi euh, boobu lee final nag ci wàllu góor ñi lay doon jàpp jëm kon euh, ci wàllu coupe du Sénégal ci la ñuy fal itam euh, roi ak ren ci wàllu basketball football moo également ak làmb ji. waaw xam nga nag dem tam amoon na waaw amoon na démb làmb waaye léegi basket bi ñoom dañuy daal di jël seen matukaay organiser. Mhm. jaay bi nit ñi dugg ñu teg musique bi ñu nekk ci biir di Mumbai. ba mhm. ñëw làmb ba noppi. ñu door suñu final. Sénégal jëm kanam. <laughs> ñu daal di wéy ci li nga xam ne mooy wàllu football bi ak euh, Casa Sport mi gagné démb équipe compagnie sucrière ñett ci ñaar la ko dóor ci Ziguinchor ci Aline Sitoé Diatta lañ ko doon jongante. ndam loolu kon mooy tax ba léegi mu daal di yéegaat ci kaw nekk ci quatrième place ci niveau euh, ci wàllu classement bi loolu nag ki nga xam ne mooy Demba Ramata Ndiaye entraîneur bi nee daal jéego yu ñu def la ngir jëm euh, ci xëccoo final bi maanaam daal ci xëccoo ak Duc ak euh, Jaraaf ak équipe bi nga xam ne mooy wakkaam ci titre champion ñu déglu ko match bi match la boo xam ne gi ñu ko gagné ci coup fil naa mun ne si bu mu bu muy waaj a jeex loolu soo gisee mu am parce xam ngeen ni ñun euh, semaines yi passé dañu tegle ay match yu métti joué nañu Louga cent vingt minutes ci terrain suuf ñëw Dakar joué cent vingt minutes ak ak ak Wakam euh, ñu tukki ñëw ñaari fan war a football fii bu ngeen seetee xaaj bu njëkk bi si naaj bi la ñoom lu ñu am chance ñoom fu ñu nekk dafa tàng ce qui fait naaj bi mënul leen réaction la suñu gars yi ñoo doon yéex a def lu ñuy def ñun bi ñu dugal dañ ko tabax ñëw ba foofu si que suba dañuy noppalu ginnaaw suba ñu dem a gagné Duc jeudi pour mën a jël place am si deuxième ci wàllu euh, li nga xam ne mooy football Copa America mooy mais xel na nag Coupe d'Afrique waaye ci Amérique du Sud koy defee bi yoon Uruguay jël na raw gàddu ga bi mooy fukk ak juróomeel bi yoon bu mu koy jël def nag euh, gagné démb final bi Paraguay ñetti ci dara la ñu ko la leen dóor ñoom waa waa Uruguay yi daanaka Luis Suarez mi ak Diego Forlan daanaka lañu daal nekkoon nañu nag ñoo xam ne amoon nañu solo lool ci boobu le match bëri itam lañ koy jeexalee euh, professeur bi di bu Lamsaar ñu koy wax Tidiane Faye jàngal na tam dëmb euh, beneen xeetu bëree Pape Mor Lo bu sàkku xam-xam euh, dañoo bëree ñeent simili yu teg tuuti mu daal di koy kon jàpp roof ko ca xabalu bu suufee lool su li wàq wa jël ndam lu yóbbu loolu kon démb la xew woon ca Demba Diop Gaston moom moo ko tëggoon li ma ci jaaxal rek mooy Gaston Mbengue dafa jël naat ba Pape euh, Tidiane Faye yore woon yóbbu këram fas yéene ko def ba mu baax te sama xel a nga woon ci naat ba. <laughs> am nga fit de naat bu ne ci làmb ji nga nar koo saaf malal jërëjëf. <laughs> RFM gëstu bés bi. ci wàllu caada ak Georges de Cidio. mu mel ni théâtre bi day bañ a màgg ba léegi day bañ itam ba léegi. acteurs ya jëfandikoo ko seen bu njëkk bi njuwee ca planche ab cérémonie de remise jegleel ko élèves yi gën a xarañ ci réew mi loolu kenn ñaawlu ko waaye li doy waar te reetaanloo moo di principal acteur ba di protecteur des arts et des lettres li mu fa joué ab comédie dëggantaan la ndax nguur moo ne ci xel wa ci ab xew-xew gu ni mel nekkee ca temps bi nga xamante ne moom lañ jegleel aar ya mu wanewaat boppam di attaqué juriste ya ñi nga xamante ne seen xel dafa màcc ci yoon fàtte nag xew-xew gi xew-xewu booloo la woon waaye nag du mbetteel ndax grand théâtre bi bosam la kon nag mën na faa waxee li ka neex moom kese jëfandikoo ko ndax jamono jiñ ko inauguré ba léegi acteurs culturels yi tegaatuñu fa tànk te nag dañu leen diggoon ne ñoom ñoo koy moom ngir gën a mën a suqali caada gi maanaam gën a suqali lépp luy seen mënin ci wàllu aar ci tënk rek njiitu réew mi dafa neewoon ne dafa bëgg grand théâtre bi nekk ab temple bi nga xamante ne lii di liggéeyu aar ci jamono gi ñu nekk dana fa fës lool te dana tax itam ñëpp di fa wone seeni talent dramaturge bi gën a mag jëm ba ci acteur bu gën a mag waaye loole yëpp amul amagul bokk jamono ji grand théâtre bi li mu waneegum moo di xarañaayu njiit wi ci kaddu yi nga xamante ne da koy yëkkati te kenn xamul fi muy jëm ñëpp nag d'accorduñ ca mu di mbetteel ndax acteur culturel yi ñu ngi xaarandi ba léegi ngir mën a jëfandikoo grand théâtre bi ñoom lañ ko diggoon war nañ koo jot nag ndax am nañ liggéey bi nga xamante ne def nañ ko mën nañ kaa wone ci gëttu àdduna yëpp xëy na nag daañu leen ne mënaguñ kaa jëfandikoo ndax gestion bi ko li muy firndeel rek moo di ñàkk gis-gis te firndeel ni itam mbir mi jaarale wuñ ko ci yoon grand théâtre bi ñu ngi ko inauguré fukki fan ak juróom ci weeru avril gi ñu weesu te ceeb bés boobu la ñuy doog a wax naka la ñu bëgg a xalaatee gestion ba mu di gestion bi nga xamante ne état bi ak privé yi ñoo ciy lëkkaloo mu di lu bu amul benn njëriñ ndax am na ñi doon wax waxi rentabilité. jërëjëf euh, Georges Déthié de la woon nag ñun ci njàngat li ñeel wàllu caada ko baaxoo ak yéen altine ju ne ñu taaxir lu ñu nit euh, xaarandi rek euh, en classe teew ak El Hadj Ndiogou moom it altine junne mu ñëw ak yéen mbokk yi ci tolluwaayug euh, njàng meeg njàngale ci Sénégal fii léegi muy teew jàpp leen ni rek xibaar yi bokkoon na ci Abdoulaye Wade mi Cheikh Tidiane Gadio jàpp ne ñi ko wër dañu ko tënk. di ko nëbb dëgg ba tax xëy na léeg du gis yenn yi taxit njuumte ci wàllu doxaliin moom jiital li jot jot naa nga woon démb ci dimanche ji géejawaay mouvement 23 juin ñoom ay laaj la ñu jibal jëmee ci Abdoulaye Wade ci li mu wax ne mën na jëlee organisation élection ci loxoy Ousmane Ngom bu boobaa yenn kuréel yeneen la fi teg ñu ne ab Sénat lay doon wala séddi M23 googu sax di ko fàttali ne faaf mënut a bokk ci jongante mënatu ko jeexal na ñaari mandaam foofe la ñu mooy ba tey ñoom mouvement 23 juin. askan wa fare Kaffrine dëkk yi di Sagna ak Ndiobène Sambalama euh, fii léegi diir bu yàggatul daanu am seen hôtel communautaire teg ak doj yu njëkk yee ña nga ca woon démb ci caravane développement local ministre Aliou Sow ca Malem Odar la woon gëstu tey bi ñu jagleel nawet beeg taw bi taxaw fenn fi eh, ci diwaan yenn yu Sénégal jaaxal waa Saloum waaye njaareem jaaxle wuñu technicien météorologique ñoom jàpp ne wàllu changement climatique yi rek la ak njëlbeenu nawet ak yooyu waaye ay bés bii di ñëw taw yi dina dooraat incha allah en classe El Hadj Ndiogou Diène Cousi Deb moo leen di may en classe. Cousi Deb mànkoo na ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp. dal leen ak jàmm ñuy wax tey ci lépp lu ñeel concours général concours boobu ñu ngi ko jagleel ñi gën a ay ci élèves yi ay ci Sénégal mu jëm ci sargal xarañuk élèves yi nu ñuy defee concours général nu ñuy tànnee élèves yi ci bokk leeral yeeg soxna Naata Mbaye. ci atub 1961 lañ fi daal di teg lii di concours général akub décret présidentiel loolu nag ngir daal di mën a neexal ndongo yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a xarañ te ni ñuy def ba jël leen wane na ko madame fay Bey Kassé mooy njiitu division direction enseignement moyen général. bu ñuy tànn xale yi pour ñu ñëw ci concours bi xale yu mën a jàng la ñu war a doon parce que moyenne bi nag mooy euh, moyenne 14 jëm ca kaw waaw nga am ko ci sa classe terminale premier semestre bi. candidat yay bokk ca concours général nag ñoom seeni professeur ñoom ñoo leen di encadré maanaam di leen topp di xool seenub liggéey. prof yi bu nekk danañ jéem a groupe laa di topp ci ginnaaw xale yi bu wanee ay possibilité ci ay velléité benn discipline donc ñu jàppale ko daal. lu ñeel wàllum organisation ba ci épreuve ya nag office du bac moom moo koy def ndax moom mooy joxe sujet yi te teg ci moom mooy corriger double correction nag moom dindiwuñ ko ci concours général général moo di amul suivi di maanaam euh, topp élèves yooyu ngir xam fu ñuy mujjee nguur gi nag bëgg na tàmbali def lu ni mel yàgg. ñu déglu si Faye Bey Kassé yor organisation cérémonie concours général nekk itam chef de division de direction bu enseignement moyen général. ñun buñ ci paree woon rek yaakaar ne tam pare nañ ci mais def nañu benn ndaje boo xam ni vraiment ñi nga xam ni ñoom ñëpp bokk ci concours général bi daje nañu. et lu ñu gis ni mooy léegi daal xale yi war nañ leen di topp topp bu ñu paree concours général ba am seen bag ñu des Sénégal wala ñu génn Sénégal ñu jëm leen toppatoo xam ci yan la ñu nekk ci yan condition la rek luñ ci mën a def daal ñu def ko loolu mooy wane ne rek euh, volonté baa ngi fi pour concours général jëm ca kanam. ci wàllu nemmeeku bi ñuy nemmeeku ci école bi jël pee ci concours général bi amuy muy lycée Seydina Limamou Laye bu Guédiawaye wante nag euh, li doy waar ci mbir mi moo di ne boobu mi ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu tar lu si mel ni màggetaayu bâtiment ya Salif ci téeméer ak juróom-ñett candidat yu ñu yóbboon ci concours général bi génn nañu ci lycée Limamou Laye ñetteelu at bi tegaloo bi mu ngi nii muy jël B ci concours général bile lycée bu gën a mag ci banlieue bi waneeti na tamit boppam ci wàllum résultat baccalauréat bi ci junni ak juróom-ñaar téeméer fukk ak juróom-ñett candidat ya ñu amoon junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ya am nañ li nga xamante ni mooy baccalauréat ba ñi am bac ren téeméer yoo jël juróom-benn fukk ya ak juróom-ñaar ya am nañu ko lycée Seydina Limamou Laye am na daanaka ci toll juróomi junni ak juróom-ñetti téeméeru ndongo ya fay jàngee école boobule daa boole ñaari xeeti jàng enseignement général beeg bu technique bi limaam laay mooy lycée bu njëkk tabax ci banlieue bi ci atum 1979 fanweeri at ginnaaw gi bâtiment ya fa nekk ña ngay waaj a daanu looloo waral ba ñu liggéeyee la ñuy laaj du leneen lu jul ñu tabaxaatal leen école bi lay tabaxaat école bi sax ab digg la boo xamante ni kii di Abdoulaye Wade moo ko defoon ci atum 2007 daal di koy tollanti ci liggéeyee nee nañu ñooñee war fa ñëw déwén kenn du fa dugg bu fekkente ni kii di Ablaye Wade defaraatul lycée Seydina Limamou Laye bu Géejawaay bi waaj a daanu. nataal bi di ñu xamale que élève bu jigéen bi gën a ràññeeku ci concours général bi rax ci dolli moom Aïcha Dédé Djigo nekk tam ki jël paie ci bac bi yëpp ci Sénégal ren ci mu am mention très bien ci série s moom xale bu jigéen boobu nag bëgg-bëggam mooy doon biologiste nataalam ak Binta Diallo. muy jàngee ci lycée Seydou Nourou Tall moo jël ñaareelu prix philosophie ak ñaareelu prix SVT bu concours général bu ren ji moo jëlit première ci bac bi ci Sénégal yëpp. am naa mention très bien ak sa moyenne euh, jaaxaloon na ma trop mais bon kontaan naa si. Aïcha Dédé Djigo moom nag ay nelaw li mu am mayi ko ko njàng mu wér te wóor moo ko may lii mu am. sama waajur am nañ si ba samay prof sama famille bu yaatu boo ko yaatalee ak loolu yëpp ko mu doon élève bu xareñ fas yéene yeggali njàngam ci wàllu science pour doon nee na. biologiste kon biologiste la bëgg a doon waaye Aïcha Dédé jigo ñu jàppane ibaadu la dafay muuru. bi may def sixième ba léegi daa muuru may def sixième ça fait sept ans kon. muy xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom-ñaar ak lu teg mën a nag yeggali njàngam ca Canada. ndax may nañ ko bourse bu mat mu mën koo jàngi ca Canada ko ko ko may du benn directeur société privée fii ci Sénégal. ngir jeexal ñu wax ne waa COSDEP daañu door ëllëg seen projet bi jëm ci bàyyi xel ci élèves yi amee laago loolu nag ngir yombale leen seenum njàng projet boobu nag mi ngi jëm ci école yi nekk ci banlieue bi kon mbokk yi foofu leen yem ak yéen dig daje altine bi di ñëw. COSDEP moo leen doon may en classe ku ci dem mànkoo na ngir njàng bu gën melokaan Master Office bi ngeen tàmmu ci mobilier ak matériel de bureau